حربة مدينة yéen waa yëmbal maa ngi leen di nuyu ñëpp ku nekk si sa ak si sant di jiital ci nooyu nag monsieur le ministre di nuyu bu baax délégation bi mandal yëpp di jiital ci nooyu bi DG maa ngi lay nuyu bu baax di baax di nuyu bu baax Balla Seck maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbooleem ñi fi nekk ñëpp di nuyu jigéen ñi di tudd Ami Amar di ko wax lay nuyu di nuyu mbooleem responsable politique yi fi nekk yëpp pour garder temps Moussa maa ngi lay nuyu Ndaamal Kajoor bon wax ju am solo ji maa ngi lay nuyu Ndiaye maa ngi lay nuyu sama xarit sama doomu ndey Serigne Fallou maa ngi lay nuyu di nuyu nag ñaar ñoo xam ne mënu ma leen ñàkk tudd ñuy sonn ci man lool Adama Cissé maa ngi lay nuyu bu baax a baax te tàccu leen loolu di nuyu bu baax Ndeye Fatou Sylla di nuyu mboolem ñu fi nekk ñëpp di ñaan nag encore une fois yéen ñëpp ngeen jëli seen carte d'identité yi daas fanaan na laa ko le 23 monsieur le ministre incha bi dañ lay fal damaa bëgg ñëpp li maa Abdou wax ngeen dëggal ko lu ngeen koy dëggalee mooy jëli leen seen carte daan tey ngeen woteel monsieur le ministre moo gën fii ci commune bi lu tax mu gën tuuti rek laay wax yàlla dafa def ñu invité ko TFM mu wax lu am solo Birima Mangara man sama laay mosuma ci échec yàlla bul échec mais nag man dinaa jàng anglais am na lu mu si toog te mooy ay doon guerre xaw ma luy loolu bu paree mu tekki ma léegi nag bu ma jógee foofu maa ngi nuyu samay ñaari fan maa ngi leen di bu baax nopp leen lool nag di sama waa kër bëgguma kenn mel jigéen ñi fi ne ñëpp maa ngi leen di nuyu monsieur le ministre di wax surtout jigéen ñëpp man yàlla def na suñu parti bi ñu commencé ba léegi jotaguñu benn financement maa ngi ñaan dugal naa lu mat cinq groupement jàpp ci nga defal ñu football wax ak ki nga xam ne moo géré loolu ñu mos te ñun nag bépp wuñ la dañ laa woo ñëwal fii nga toj koñ bi jàppale ñu jigéen ñi liggéey woteel la loolu lañ bëgg li Ndama wax nag am na solo maa ngi nuyu bu baax sama xarit sama doomu ndey sama coordinateur El Hadj Birane maa ngi lay nuyu bu baax li nga waroon wax ci ministre maa la koy waxal yow ku bëgg ministre nga yow naa Aliou da ngeen bëgg ministre lool di ko wane saa su li ngeen may conseil dafa bëri mooy Ablaye gën a jàppale monsieur ministre ndax ku mën a neex a la dafa baax ci woye woyofam te nag ma wax leen lu ngeen xamul man monsieur le ministre dama ko daan dégg rek mais yàlla def na benn jour damaa invité këram am nu mu def man comme li Balla Seck gën a bëgg ci àdduna muy lekk ma bokk kook moom mu teral ma teral mbooleem ñoo xam ne moom la bokkal ci coalition bi c'est la dernière fois ma gis koo xam ne autorité la muy bokk ak responsable politique benn lekk te la ma sa gën a neex moom may daggal may ma suuti rek lekk ma lu bari nag mos tuuti da leen wax ne kii doomu yëmbal la incarné wul li ko yàlla dénk dafa bëgg fii commune bi te nag man monsieur le ministre bu dul dara sax dinaa la campagnal bu baax lu ko waral yàlla dafa def ma jugee saabu ñëw fii di daan sama doole nekk fii yëmbal ubbi fi bu di orange waaye yëmbal bëgg ma lool bëggantuñu ma dañ maa bëgg ndax damaa nekk seen doom ñu may bëggee lépp lu dem ba Dakar mënoon nañoo dem Sonatel Poste Diané mais duñ fa dem lu waay bëgg fii lay ñëw ci sama ma jàppale ko léegi nag maa ngi leen ñaan yëpp Mame Diarra ak mbooleem ñi fi nekk ngeen jàpp si takku liggéey falal ma monsieur le ministre bu ngeen ko defee mooy lu ma neex moom sax ngeen di def ndax xam naa ni ngeen koy defee monsieur le ministre maa ngi lay encore une fois nga gën a jàppale koñ bi suñ jumaa ji dañoo ñor lool te nag yàlla def na jumaa wu Cheikh Tidiane Diop da nga faa def 33 millions bal di ma bàyyi ma jël sama temps bi 33 millions yi dañoo bëgg ñu ngi lay woo fii nga defaral ñu suñu marago bi yii xanaa yàgg nag bëggoon naa monsieur le ministre boo jëlee kàddu nga jàppale ñu defaral marago bi defaral ñu suñu miir bi fii ñu nekk muy daara alquran ji miir bi dafa yàqu monsieur le ministre maa ngi lay ñaan ngeen miireel ñu ko tabaxal ñu ay classes yoo xam ne doo mu yëmbal yëpp dinañ ci mën a jàng alxuraan di la ñaanal loolu lu ma ñor la beneen bi des may ñaanal encore une fois mboolem responsable politique yi ne fi yëpp ñu takk jàppale la xam ne yow yaay mbër mii daan incha allahu rabbi du ma dëñ nag ku ma tudd rek maa ngi jégalu waa tudd naa leen yéen ñëpp di leen ñaan ngeen takku waaw waaw Cheikh Issa Ndiaye borom jaasi ji nammal jaasi ji jëlee fi waa ji may bañ a tudd non bu ko dóor jaasi dóor ko baatal nag boo ko dóoree jaas day waaw léegi nag di ñaan yéen ñëpp ngeen gërëmal ma Cheikh Ibrahima mii aw ma fayal ku baax la ku bëgg monsieur le ministre ku yaatu la maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ku ma tuddul rek maa ngi tudd sëñ Issa ana moom maa ngi koy maa ngi koy nuyu te mu ñëw fii ne yëngal monsieur le ministre même bu dee imin bal dina yëngal dina yëngal tuuti na waaw waaw waaw du yàq dara may ma Balla Seck soxna Daabel maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi fi nekk ñëpp bàyyiwuma kenn monsieur le ministre maa ngi lay ñaanal en tant que responsable politique nga jàppale ma ni nga may jàppalee la man du xaalis maa ngi liggéey am naa dépense financière ma sama jigéen ñi te yàlla tax te bu ma sañoo na nga ne ma man dëkkewu ma la dama laa woo ni ma lay wooye jàppale ma sama euh, sama sama groupement yi cinq kese defal ma faveur maa ngi nuyu Adama Cissé di nuyu ñëpp te bu ma sañoon nag nga jàppale ñu ni ñuy jàppale mooy joxal Iba wala kenn rek mosal Moussa Ba maa ngi leen di maa ngi jënd bu bi si des mooy dañ leen di ñaan le 23 janvier bu nu fi yàlla bàyyi tal ko wooteel Amadou Hott parce que moo dëkk ci yëmbal yëmbal yëmbal ku nekk dégg la ko de ku nekk jaar na fi de gannaaw sëñ Dakar moom ma dem fi la nekkoon yëmbal moo njëkk moo moo jur Pikine moo jur Géejawaay waaye da ngaa yokk jamono ji ku ne yëmbal nga dañ lay jox beneen beneen beneen niveau ndax sa xam-xam ndax ndax sa xam-xam macha allah da taaral yëmbal te yàlla ko yàgg taaral monsieur le ministre doucement ñun de doucement doucement voilà doucement kon monsieur ñoo ngi leen di ñaan da ngeen jëli seen carte tàcc bi neex na waaye la ko yóbbu ci mairie bi mooy ngeen jëli seen carte carte yaa ngi nekk centre Afia boo ñëwee ba mu woon boo laajee boo laajee fu fu ñu joxe carte yi ñu leen ko. yàlla na yàlla def incha allah rabbi le 23 janvier balaa 20 heures kat gi leer ñu jox la ministère bi yàlla ko yàlla def yaa ngeen pour yombal jëm kanam ministre Amar Xoot moom de wóor na yàlla li ñuy jàppale pour ñu am yombal bu bees marché bu bees jumaa yu bees école yu bees moom moo ko yeggale fii fu mu nekk nii te tali yu bees bii benn tali la amoon am nañu ñaari tali jigéen ñi amuñu woon financement. jóge foofa dem Amérique am ay diplôme dellu siwaat ci réew mi Afrique gii ñu ne président ma ngi ko jëlee ci banque Afrique banque banque africaine de développement dem Nigeria banque bu mag ba fa nekk nga xam ne ñaari téeméeri nation nga fa sunu waa ji jiite ne ko ñaari at wëlbatigu nag tey dellu siwaat di doomu yëmbal jël kër baayam def ci deux cent millions jaglee la ko yëmbal tudde ko sant euh, Sidi Hott la mu ci jublu waa yëmbal tedd tey am na ñuy wax te xamuñu sax li mu def tey ku dem ba Thierno Ndiaye nga taxaw wëlbati ko xool trottoir bi ba balaa nga yegg buun romb ko sëñ Touba da xam ni sunu waa ji mi ngi nee na yëmbal gu bees waaye dafa door yàgg naa ànd ki autorité du tey de waaye wax dëgg yàlla kii yal na nu yàlla dolli jàmm dolli nu tawféex ba jot ci mairie bi bëgg na ni leneen lu ëpp ci yow ministre. waa Afia 2 maa ngi leen di nuyu euh, ku nekk ci turam ak ci santam maa ngi nuyu également imam yi di leen gërëm di leen sant ci ñaan yu nu fi defal di nuyu délégué de quartier. di nuyu sunu papa yi ak sunu yaay yi fi nekk sunu rakk yi sunu jarbaat yi sunu mag yi walla sunu soxna yi fi nekk di nuyu bépp leaderu Benno Bokk Yaakaar bi fi nekk wala mouvement boo xam ne yaa ngi ànd ak ñun di jàppale ma jël nuyoo bi nag euh, teg ko ci loxo wala ci ay kàddu ndaamal Kajoor Ndamal Kajoor nga jottali nuyoo bi à tous les responsables donc de AFIA sama délégation tam maa ngi nuyu ñëpp comme temps bi dafa xat nu mu mën a jaar ci turu mais ma jël lépp dénk ko Oumar Yaya Sow mu jox ko Mbayloo Mbayloo jottali ko ñëpp malheureusement nu mu mën a wax vraiment temps bi ma bëggoon jël ndaxte am na ñeneen tam ñu nuy xaar. man tey dama bëggoon 19 heures fekk ma moo tax nag TER bi laa jël train express régional bi laa jël bi nga xam ne président Macky Sall inauguré na ko démb pour rek bañ a tardé ma teel a yegg mais xam naa ne tam du seen coobare suñu tardé commencé à 21 heures mais dafa am ñeneen vraiment ñoo xam ne nit yaa ngi dem sax su ma demee léegi nar moo fekk kenn te loolu dafa ñaaw moo tax damay tënk wax ji rek. yemale ko ci doléance yi incha allah mosquée bi lépp luñ ci mën dañ ko def incha allah loolu moom euh, imam incha allah dinañ ci euh, euh, jóg incha allah également vraiment Abdou Karim Touré sëriñ Abdou bu baax di ko gërëm di ko sant moom it ci ñaan yu fi def incha allah di ne financement yi Ablaye. balaa may wax waxu financement dama lay gërëm yow sant la euh, sant la ci sa engagement parce que gis nañ ko dëpp bi nu Thierno Diop boolee ñu wax téléphone boobu tey yaa ngi engagé wu engagé wu fu nu dem yaa nekk yaa ngi fa yaa ngi porte à yaa ngi jàppale nit yi ndax incha allah janvier ñu am ndam donc dama la ci gërëm sant la ci Ablaye Gueye vraiment sa liggéey rafet na vraiment rafet na ay bépp war nañ ko tàcc war nañ ko tàcc bu baax sama ay doon keer boobu démb barki démb nag boo xam naa suñu wéetoo rek naa la wax lu muy rek ci mais dama la ci sant ne la aussi li nu ñaax ci financement yi jigéen ñi xam naa IBA am na deuxième ligne bi nga xam ne defoon nañ ko commencé sax jox ko jigéen ñi jël ci boole seen groupement yi xamaguma nag ñaata groupement li mun a financer léegi mais Iba dina xool lan moo mën a sotti ndaxte danoo xaw a tardé tuuti groupement yi fi mais il n'est jamais trop tard donc den xool ñaata groupement lañ ci mën a jox après moom Iba dina la wax comme ça ngeen remplir formulaire bi joxe dossier yi incha allah nag financement yi nag. du ci yooy rek la yem ndaxte ku def financement cent millions pour jigéen ñi nara def financement incha allah soixante millions pour jeunes yi yi ñi nga xam ne ñoo def ay métiers loolu nga ci liggéey te incha balaa élection bi am naa ci yaakaar que ne ak sunu partenaires yi financement boobu dañ ko mun a terminer jeunes yi commencé jot incha xam nga ku def loolu nag lu tolloog euh, millions. loolu ko def te nekkuloo maire soo nekkee maire incha allah def leneen lu gën a am solo loolu moo tax nag rendez-vous bi ñu jëm foog ñëpp jóg ci fagal ku nekk nga retirer sa carte yu bees ndaxte carte yu màgget yi du la du fal maire bu bees maire bu bees bii ngeen nar fal macha allah nekk jantal nag. waaw man moom maire bu màggee ma carte bu màggee moom man du ma mu fal waaw suñu changé wu woon yi sax dama leen naan ngeen changé carte bu bees ndaxte carte yu bees ñooy tax nga fal maire bu bees nga am yëmbal bu bees yëmbal bu bees nag ñaan bu ànd ak amil la ndaxte yëmbal bu bees dafa ànd ak terre bu bees ministre yi di ko jël jigéen ñi di ko jël étudiants yi di ko jël commerçant yi ak commerçante yi di ko jël imam yi di ko jël même président sax incha allah suy demati jam ñaajo moom terre bi lay jël moom xam ngeen terre boobu nag macha allah terre nag ñu ngi koy wax ci wolof saxaar su gaaw gi saxaar su gaaw gi wante ci pulaar nag ñu ngi koy tuddee laana njóor ni njaaw kiki laana njóor ni njaaw kiki xam nga dafa neex sax laana njóor ni njaaw kiki n'est-ce pas loolu mooy teer ci pulaar ci wolof nag saxaar su bees yi te gaaw mooy teer donc dama leen di ñaax ñëpp jël teer parce que terre bi terre bi dafa sécuriser terre bi dafa am ay gendarme ci biir ak ci biti te ku jëlu terre bi tam soo nee ba wàcc station yëmbal incha bëgg naa balaa semaine jeex ñu commencé def ay lampe mu leer naññee incha nga xam ne côté boobu tam dootul am agression ñëpp lay arrangé te tali boobu tam ma tuddee ko incha allah suñu ma dama koy tuddee doxantu yëmbal doxantu yëmbal am nga foofu nu mu mel loolu kenn mënu fa doxantu ndaxte yoon bi dafa xonk cuur am ay poussière yu xonk ku fa jaar sol yére bu weex day xonkat cuur ñun nag ñu bëgg ko ñuulal ko def ko tali bu bees tàkk am nga yëngu lu moom tali bu bees rek la yàlla incha allah lépp ngeen fay doxantu dox ba sa yegg sa kër wala nga jël taxi wala nga jël super wala lu ne mu yóbbu la ba sa kër fekk teer bi moo la jëlee Dakar ba foofu. te diggante ndakaaru yaay nag ak yëmbal def naa ko sànq ñaar fukki minute dong lay doon maximum teer soo ci ñaar fukki minute te tey soo jëlee transport yi nag mun nga def ñaari waxtu ci yoon te foog nga yeewu suba teel. doo ko mun a am sax oto bu la yóbbu biir Dakar train bi nag day daw diggante 5 ci suba ba 10 ci guddi yu ne nga gis train ñëw ci station bi jël la yóbbu la donc soo tardé sax jarul ngay daw ngay daan ndaxte fukki minute beneen train ñëw nga dugg ci nga dem si yoon donc lool mooy yëmbal bu bees terre bu bees tali yu bees financement yu bees école école élémentaire bu bees tàkk fii ci Afia nga xam seeni ay doom seeni ay doom suñu ay doom kenn dootul jéggi raay di jàngi feneen wala di jéggi télé bi dem di jàngi foofu ñu defal leen école élémentaire fii suñu doom itam incha kenn dootul jàngi école foofu te ndekki wuloo jàngi incha allah ku rek. nga ndékki incha allah donc sunu jigéen ñi fi toog soxla ku leen ngeen di teel yeewu di wut loo leen jox xale yu ndékki xale itam soxla suñu dem jàngi ndékki wunu su 10 heures jotee ñu bàyyi lu doon jàng dem kër ga naan dañuy ndékki ñëwaat xam nga loolu sa sa jàng du jaar yoon. donc man en tant que maire dinaa def cantine scolaire loolu may tuddee goûter à l'école nga xam dañ lay jox nga ndékki lekk ba suur. parce que biir amul dara bopp bi mënul denc dara biir bu am dara mooy am bopp bi denc dara n'est-ce pas donc xale yi yéen ngi doon jàng jaaraama jaaraama jaaraama on jaaraama on jaaraama bandiraɓe afide mi salmini on on jaaraama mi jumima on jaaraama on jaaraama jarama bandiraɓe afdenaɓe mi boobu école yooyu nag day ànd nag ak goûter et te marché bi tam comme ni ma ko waxee woon man du ma nekk maire dem fu ne ci àll bi macha yàlla dafa lumu may nekk ci boo xam ne marché boo xam ne dafay taa wala marché boo xam ne amul lu mu war a am man loolu jomb naa loolu incha allah donc suñu falee ci mairie bi dina defar marché bu bees tàkk ci Afia Afia dafa war a nekkaat centre boo xam ne économique la boo xam ne dangay am loo xam ne foofu marché la nga am également espace boo xam ne jeunes yi ak artisans yi dinañ mën a ñëw di liggéey foofu nga xam ne soo amul matériel sa place sax di nga am foo xam ne ñëppay bokk matériel bi nga mën ci liggéey te itam xale yi di di football su ma nekkee maire incha allah balaa sax ñu koy nekk terrain naataange boobu dinañ fa def centre de formation boo xam ne dina mën a former ñeenti téeméeri ndaw at bu nekk te centre boobu tam dinañ fa def tam benn terrain de football bu 90 mètres bu am yu nice yéen xale yu góor yi di fubal wala sax xale yu jigéen yi bëgg a fubal kenn dootul daanu di daanu ci ay xeer wala ay butéel di la jam wala ay xeer di la xoos ngay am ay ñaar dërëm fii wala ay juróomi dërëm fii loolu dootul am wala seen jeunes di yàqu loolu dootul am donc loolu mooy li nga xam ne moom lañ fas yéene def te xam ngeen maire bi fi nekk bi fi technicien yi xoo di saytu nu ñuy defee centre bi nu ñuy defee terrain bi dafa yónnee ay nit naan fii terrain bi baaxul dafay taa ndox def fiy am mënu leen fi tabax nangam nangam ak nangam ak nangam bañal leen terrain bañal leen centre de formation te ñun incha allah du leen faale si loolu su dee dafay am ndox dinañ ko def assainissement ak lu fa mënta nekk liñ fa mënta def pour terrain bi nekk foofu terrain de foot ak centre bi nekk foofu ak école primaire nekk foofu terrain basket nekk foofu incha allahu taala dinañ ko fa def soobe yàlla fi may terminer nag fi may terminer nag parce que programme bi dafa bëri mënuma wax lépp li am solo nag laay terminer mooy assainissement assainissement nag ay milliards ak i milliards ak i milliards yoo xam ne loolu mairie attanu ko sax yooyu nag état bi moo ko attan président Macky Sall moo ko attan ki nga xam ne may nañu lu ëpp ñaari milliards ñu defar juróomi kilomètre Italie ci route Thierno Ndiaye ba mbedd Fass route des Charrettes mbedd Gaynde et defar ko ba mu naaj def ci assainissement ak ku nangu ñu defaraat route des mooy deux fois deux fois tali jëm ba Kër Massar cinquante huit milliards ku nu ko defal. xam naa ne incha allahu taala su nekkee maire ñaan ko ko du jomb may nu cinquante milliards wala soixante milliards ñu def assainissement wu yëmbal comme ni Kër Massar amee yëmbal amee amee assainissement incha allah noonu la yëmbal di amee assainissement nga xam ne at bu jot su ñëwatee su mairie deful liggéeyam doomu yëmbal soxla suñu jël seen alal di ko jënd ay moto pompe di ko loué ay engins. comme man ni ma ko defee woon ci nawet bi passé ak yeneen nawet ndax passé ndaxte assainissement bi dañ koy defar ndox bu nga xam ne dafa tilim day dem géej ñu traité ko ndox inondation day ruisseler moom it dem ci géej gi soobee yàlla te mu ànd ak ay tali yu bees tax incha allah donc mbokk Afia 2 yéen ay ñu xarañ ngeen xam na ne yéen seen xol ku ko ubbi woon président Macky nga fay fekk ku ko ubbi woon xool ba lu mu xat-xat Amadou xool mii dina fa am place moom wante nag même su dee nanu gën fagaru nanu gën fagaru jëli carte ku am carte ba pare carte bu ko am na nga yëkkati ñaata nit ñoo am carte yu ñaata nit ñoo am carte yu ah fii de amagul carte bu bees côté boobu amagul ne papa papa carte bu bees amagul foofu de dañ doon jëli carte yi kan moo amagul carte bu bees kan moo amagul na nga yëkkati sa loxo amagul rus raawul ki amagul carte bu bees pour nga yëkkati sa loxo ku amagul carte bu bees papa amagul carte bu bees mais nan la gudd nga dem jëli ko incha allah mais nag nan dem jëli carte yi.

woote si dëkk arab yi woote Amérique woote France woote Chine woote Afrique du Sud woote Japon ñëpp ñëw jàppale yëmbal Sud jërë ngeen jëf merci merci beaucoup. ah non non na ko géré balaa balaa ñu dem nag balaa ñu dem nag dama bëggoon ñun ñëpp vraiment ñu nuyoo euh, tàcc coordonnateur waa RP bu département de Kër Birane ñoo ngi lay nuyu di la gërëm di la sant sa teewaay jërë ngeen jëf imam jërëjëf merci وصلي وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الدنيا وسلام في الدنيا وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة على المسلمين والحمد لله رب العالمين.